thank you 8 18 l'album album 8 18. 8 18 c'est 2008 2018 10 ans de mariage hommage avec euh, à à à ma femme à toutes les femmes africaines aussi euh, toutes les mamans je leur hommage bi parce que euh, imagine toi que nga am sa soxna sa déggante franchement mu euh, référence.

def xam nga xam nga imaginer aussi savant la man maa créer man ne pourquoi pas huit 2008 2018 ko 8 ko le 17 décembre passé hum, macha allah sénégalais sénégalais yi ak sénégalaises yi euh, ñi accueillir ak bras ouverts franchement 8 18.

mu ne ma ok mu ne ma loolu loolu pour man ma ne ko yow pour yow mu ne ma franchement kontaan naa ma ne ko ah, ma ne ko yow yaa ko waaw ma def si nag lu ma mun euh, pour wan ne delloo ko njukkal aussi tous les femmes africain tous les mamas xam ne ndeysaan ñu ngi si foyer sonn lool seen njaboot seen borom kër jox leen ko nag pour ñu consommer bi 18. d'accord maman wéy wéy na yi way doy waar. oui individuelles yoo xam ne macha allah maman chérie maman chérie seule ah avec le micro moom kese moom woy individuel maman chérie def na loolu te soobee yalla clip bi léegi mu génn parce que ñu wax Djiby Dramé 8 ba mu ñëw promotion ba léegi ñu koy dégg ana vidéo yi ana vidéo yi ma ne ko may leen ma tuuti comme incha après les campagnes rek yalla, yàlla euh, naañu lancé ñaari vidéo ensemble maman bosam individuel ak man sama individuel ak un grand cantatiste. Euh, mi xam ne ndaanaan la di sama xarit sama jigéen muy Soda Bousso ñu def diyo boo xam ne man ak moom ak mama aussi individuel la ñu koy génnee soobe yàlla soobe yàlla. Euh, naka nga daan naka nga daan sànq ba tey yaa ngi tàggat maa ne jàmbaar nga parce que artiste sa jëkk nekk artiste yombul. Mhm. donc artiste mais naka bu nga ñëwee léegi gis nga ko da nga fekk mama mi ngi mi ngi si waañ euh, d'abord. Euh, foyer foyer la liggéey liggéey la su nekkee su foyer beneen maman chérie ngi gis euh, mu ngi si njaboot bi mu ngi si toppatoo borom këram mi ngi régler kër gi lu mu mel mais nag liggéey su jotee da ngay gis beneen maman chérie beneen façade ndax euh, loolu yàqu dara sama liggéey ak moom ndax côté toppatoo borom këram ak njabootam. mun ko def ba mu mot sëkk liggéey bi aussi su ñëwee day sonné tonne de travail ñu dem liggéey ji macha allah euh, may dund ak moom naturellement sans sans tricherie euh, parce que femme de foyer su jotee dem kay day daf may wane carrément moom femme de foyer liggéey bi su jotee aussi am nañ complice aussi si liggéey bi. artiste bi sa kër comme. non artiste bu ñu ñu siwee rek seen ménage yàqu moom artiste non euh, je crois que ñëwoo ko ba pare nekkul sax si biir xelam te euh, éducation bu ñu ko jox ak aussi man mii borom këram euh, fu ma féetee moom je crois que loolu jamais mu def ko ndax macha allah ba mu ñëwee yoo nga xam ne da ngay gis maman chérie mu raar ñu ne an maman am na maman chérie su raaree rek nga xam ne fu mu macha allah yàlla may na ko bant kon nag xam nga ne kooku faayam yoon na ko. waaw du jigéen boo xam ne aussi euh, lu ma ko mën a seedeel xam nga ñu ne euh, boroom këram moo mën a seedeel jabaram voilà lu ma ko mën a seedeel mooy euh, li nga xalaat ñooy du jigéen boobu du jigéen boobu te këram la jóge ñëw këram ndax man cousin am la suñu ñaar maam ñu bokk ndeg bàyyi voilà voilà ma indi ko jëkk ma la indi ko Sénégal mais nag doomu sénégalais la parce que Tambacounda la juddoo ñu affecté papam tam Mali moo taxit mu yaro Mali mais na la judd mama sénégalaise sénégalaise la mais sénégalais man aussi kon nak euh, dal lu ma la euh a euh, euh, dénku rek. kii bi naka ngeen koy dundee xam nga des fois du ñàkk ñun jigéen ñi dañoo fii bëgg problème loolu nag nga koy dundee parce que yéen ay artistes ngeen <laughs> <laughs> c'est normal xam nga jigen bu su fiirul rek nobul firu, su fiirul rek xam nga nobel bi na. ku bëgg a fiir waaw c'est normal euh, euh, euh, Nous n'est parfait dans la vie euh, mais quand même loolu su amee aussi je crois que mu mu ngi mu ngi def maximum pour contrôler boppam ndaxte du ko fësal du ko wanewu mais nag dinaa dinaa xam ne dinaa xam ne bii paa bii bee sëriñ si def na défaut uh-huh. ma reculer waat <laughs> ma récolté waat waaw mm, mais nag euh, du ma du ma ko du ma ko fësal mais nag avec ces ces actes dinaa xam ne ëpp oh, law te il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui bah, waaw ma récolté waat ndànk euh day xol man nak sant naa yàlla euh, bu baax julli Seydina Muhammad bo xamné suma su album euh, sama soppe yi ak euh, ñu koy consommer dañ koy xaar ak bras ouvert moo taxit je prends tout mon temps mun naa toog quatre ans cinq ans du ma génne album wana yeneen saa yi su ma nammee euh, sama fanks yi bëgg indi lu bees sànni benn single mais nag album rarement laa koy génnee mun naa def quatre ans cinq ans du ma génne album moo taxit te aussi sama album macha allah dem si sant yàlla sama premier album c'était en 2006. Mm, so xoolee dimi 2006 jusqu'à 2019 ñu ngi si man quatre albums laa génnee sant naa yàlla xam ne décalage de cinq ans wala décalage de six ans seen diggante lu waral loolu parce que ñu koy consommer duñ si doyal duñ si doyal ndax aussi musique bu may def la musique la musique mandingue la musique mandingue euh, je crois que yéen mii euh, da nga xam ne déggu leen sax lakk bi soo leen xoolee sonorisation bi chaque jour day bees yéen kon moo taxit euh, ñun duñu yàkkamte pour génné album parce que balaa ñu koy génnee dañ koy togg ba mu noon ba ñor su ko suñu su génné rek gaay dañ koy apprécier té boobaa ñu jël suñu temps gaay di ko consommer. Hmm. album yi daan génn waxuñu la ni que ñu ñoo ëpp buzz sànq nee nga bii attente bi weesu mais waxuñu la ñoo ëpp buzz que album bi wala peut-être li nga defagul promotion bi clip bi moo tax. non bi album bi mo gën ëpp buzz album bi mo def yépp franchement waa album mu génnagul sant naa yàlla album bii moo gën a ëpp buzz.

Machallah, dans les médias, hein, euh, dans les réseaux sociaux aussi, Machallah. daanu euh, gën al su ma doon daan album euh, da nga xool ne dañuy daw journalistes yi ak euh, animateurs yi dañuy daw suñu su Djiby Dramé mais bii pa man maa ñëw wane nag fësal sama album 818. 8 18 maa communication bi 100 parce que ñor na ma lool

kon album bi kon ça a fait un reçu totalement, macha allah. production bi naka lay demee. yow da ngeen di autoproduire yeneen a produire seen bopp wala dafa am koy teg loxo la lay non ñu ñoo produire suñu parce que man dama am sama label bopp mooy production Jëlikunda production xam nga léegi soo xoolee léegi producteur yi léegi ndeysaan euh, lu ñu ko tey mi artiste na yor ay yor fan. ñu bëgg la sa bopp nga bëgg sa liggéey avancé te waaso ba nga bokk mi mooy la man dénk ak soninke bëggoo sa waaso nelaw ñoo ñu ngi def seen maximum di la déglu di la béggee di la jox encouragement pour nga avancé yow nag yow yow nag lu nga war a def nag mais na nga delloo leen njukkal nag bu toog moo tax nag ma génnee sama abel mooy Galicounda production ma produit sama bopp ak surtout suñu ma denc ma génnee ko pour sama liggéey gën a set ñi xam ne Djiby Dramé lu muy def nag franchement euh, euh, nelawul ko est-ce naa ko compter. <laughs> <laughs> xam nga soo xoolee fu mu toll dëggu soo soo xoolee nga dem dugg studio nga jóge studio euh, combien de jour studio pendant des mois nga ñëwaat nga génnee CD bi wala nga génnee clé yi. imagine toi que lolu nga génne aussi flyers yi nga génne affiches yi nga génne panneaux rituaires yi dans tout Dakar machallah nga wara a préparer les vidéos te yo xam nga ñun suñu vidéo yombul dara yi ñuy sol euh, franchement soo xoolee lolu budget boobu euh macha allah kon nak lolu mun ma lolu loolu mun ma mun ma ko xayma waaw man nag ma la ko xayma quel clip su sax vidéo bi da nga quel magnifique clip Masha allah man ñaan sénégalais wax ko ñaan la Pikini production wax ko ko de woo ma félicité def c'est le travail paye daal lépp loo def rek euh, euh, revenir la quoi ñëwaat parce que en tant que sa soppee ñu ngi rek xam nga dama ne bala ngay lax jaa nga laax lekk man na bala mama di ñëw Sénégal xam nañ ma xam nañ Djiby Dramé e, e, existé na eh, macha allah quatre ans de cinq ans de succès ma doon takk jabar bu mu ñëwee nag mu doon daanaan mel ni man mais duma ko tëj ci buntu wàcce rido nag dama koy génnee ma ne ko nañu liggéey union fait la force nañu liggéey moom su ko indee def ko si njaboot bi man su ma indee def ko njaboot bi day gën a yokk rek sant naa yàlla nag bu ma ko indee macha allah sénégalais aussi consommer Mama Chérie plus que man te su ma génnee ñu ne su ma man su ma kenn man kenn su ma nekk circulation dañu ma waaye yow ana suñu ana suñu chérie Mama Chérie maman aussi la même chose su génnee ana papa dadi kon nag euh, complicité boobu boo public public bi di ko wax si si territoire yi loolu ça veut dire que macha allah lu ma doon ñaan yàlla yàlla may na ma ko. mu indi naa ko. parce que moom daanaan la woon. Ah, mu nekk ndaanaan mu nekk ndaanaan loolu laa wax ma ne ko man première soppee Mama Chérie may borom këram may Djiby Dramé macha allah mu nekk wéykat te man ma xam ne wéykat la te law la cat law la ma di ko ñaan yàlla mu baram bu wër ndax euh, wéy yombul wéy yombul nga ñëw sëy si si biir wéykat aussi yombul nga am si njaboot aussi yombul kon na demee ne mention spéciale pour maman Chérie mu gën a góor góorgóorlu mu gën a góor góorgóorlu ndax public sénégalais yi bëgg nañ ko macha allah te lu muy le lu muy def rafet na mu gën a góorgóorlu jàpp foyam jàpp liggéeyam. Euh, boo leen di def son comme son yi ngeen di bokk parce que nee mm. am na solo. Mm. ku nekk def na son sa bopp des lu ma la wax. Mm, liggéey bi liggéey bi su amee. liggéey bi su amee da beneen façade ngay gis doo xool du du du du Djiby Dramé si biir kër du Maman Chérie si biir kër on travaille on travaille dañuy liggéey man su ma defee naka su du noonu dina wax carrément dadi sa pas comme ça. man aussi su defee naka su na maman non am na benn euh, benn benn benn benn benn benn secret sax maa la koy jox xam naa loolu dana loolu piki ni moo koy am quoi première euh, single ak man maman chérie sukku lu ma demee sukku jëbalu su la jëkkër terale war nga doon taalibeem woy boobu bu ñu duggee studio maman elle comprend pas bien olof ma bind texte bi te texte bi lu mu lu mu lu mu lu mu ñëwee te loolu loolu intimité la sama diggante ak moom ma ne ko d'abord dañuy def suñu diwo mais ba mu bindee texte bi parti boobu noonu c'est tellement dur pour mu wax ko sukk jëbalu <laughs> man demee suku jëbalu su la jëkkee teralee war nga doon taalibeem mais pendant 4 jours 5 jours ay njëkkeem du ko jàngal man mi di jangal ala fe la fin ma xalaat ma gedd añu ma reeruma ma <laughs> konate de day konate bi ñi arrestere bi ngi di ma deglu de na do bay jamm ne ko duma ko bay mais luñ ko wax goudi gi ba matin bi suñu demé studio non mu nañ def 5 heures de temps 6 heures de temps bala wax ben ben mo bi ben bés dal ma jëk jëk rek gedd añ gejj reer pour te dire que non ken mënu fay artiste ken mënu fay kenn mënu fay woykat moom ma ñëw ma gedd da di am do do añ mané ko añuma dadi do rer reruma mi jappatu guddi gogu ne lawol mo wo ñeekami jël bindi ak bindi bi ak fay moom a gën a jàng parce que mom mom moom dem na am BFM am yoyu wa man nak def cp 3 fois 7 3 fois 7 2 moom day bindi rek <laughs> bu mu jàngee nag bu mu mokkal lan ba mu ne ma dari tey nañu dem mu ne ko nañu dem mën na ko ne mu ne ko bu añu reeru té té da ngeen añ da ngeen reer nañu dem bu ñu egsee ma jégué jékki rek mu jël kasse bi su ko jebelu man su ko jebelu su la jégué taralé war nga doon talibem ba bis na bravo mon ko mon ko te xam nga dafo yow

na gërëmee ko ay soppeem na gërëmee ko ñu koy béggee ñun mënuñu amuñu lu ñu munta am rek soppe yi ak géer yi ñoo ñu koy tarale euh, sant naa yàlla boo xam ne macha allah ba ma commencé aar ba léegi lépp lu ma sol sama soppi ak sama géer yi laa koy gërëmee ndax ñoo ma koy may may jënd di sol dara yi soo ko xoolee xayma mo gëna cher lu xalat te mën nga dem ba euh, euh, jënd pantalon ak chemise nga ne ko nga ne ko li la am nga wañi mais dara yu amul lolu dara yi kenn ku ne xam nga su lu bëgge lu baax il faut il faut mu don bam som som som som som som bu dëgër nga am lolu nga sol lolu 10 wala 15 si ben ben clip xaymal lolu xam nga ci cher mais nak suñu liggéey jaram nañ ko parce que ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi si ñi ngi si ñi ngi siy solu mais aussi yàlla mi ñu koy yombal bu ñu ko koy am di ko sol non dañ koy jënd non dañ koy jënd dañ koy jënd waa dañ jënd suñu dara yi waaw dañ jënd suñu waaw soppee la ne ma jàkkaarloo yow sa ngénte ak sa mariage sa concert nag ma yuuxu la kay moom xam nag may jox su ma joxee nag ma xalaat ne tey dama am naa émission wala war naa war naa tourner clip ma dem commandé sama boobu ba ma ko Euh, mm. mm. waaw c'est nga tànn style boobu. xam nga d'abord la musique mandingue dafa méngoo ak suñu solin yàgg naa ko ko wax du question yor naa wala am naa ko mais dafa méngoo loolu suñu maamaate maam lañu nga sol lu jot sol lu rafet jàkkal ak say say noble say géer di leen tagg ñoo ñu ngi kontaan musique mandingue dafa noble soo xoolee dama ko dama ko café dama ko fooy. Djiby Dramé fu mu taxaw rek di woy jël micro di woy ay baaxu maamam rek farata moom a jóg du ma ko def terre à terre wala du ko sànni yooyu non non non ndax euh, ñu ñu suñu ñu ku ñuy fekk ñu koy def dañ ko def ànd ak yiw ànd ak fulla ak fayda mu rafet lool ku leen gis ñi naw loo leen moo tax it suñu mbubb yooyu ngay gis ne mii daraay day méngoo ak suñu woy Mali lay jóge non Mali lay jógee gesneer yi aussi ñu ngi jaay fii mais nag su suñu bëggee sol gesneer mbasin mbasin la tudd ñu jënd ko fii ñu sol ko suñu bëggee sol nag cuub nag ñu commandé ko Bamako ñu ñëw lu leen wute nag euh, comme cuubkat yi li ñuy wax xëy na ñu ne ndox bi la ak tàpp bi la loolu la ñuy wax ne mais nag am nañ aussi ñiy cuublu fii muy rafet lool macha allah sénégale ñu ngi def consommation locale yi rafet te suñ ko indee aussi fii téere ñu ngi ñaw

man sama yére tubaab suis sax ñoo gën a bëri sama yére xëy na travail bu ma yor mooy su ma pare su ma nekk si géew ma sol ay yére africain comme ça yére olof comme ni mais nag sama sama yére tubaab moo gën a sama à part sama liggéey nii damay sol sol sama mais daan ma ko waaw loolu sama intimité la waaw mais voilà léegi nag ko

mais nak euh, lu vidéo ñaari vidéo ñu a génn ay boobu si génne la wala cat. boobu moom su génne yaa may njëkk woo. <laughs> boobu incha allah rabi boobu soobee yàlla xam naa ne 8 mars bi euh, fête fête de la femme soobee yàlla dañuy génne ñaari vidéo yi comme 8 c'est hommage pour les femmes Je yàlla bëgg nañ génne vidéo moo euh, promotion 8 bi promo promotion si cadre média yi ak euh, ak fësal ko si affichage yi mais vidéo bi ma xaar ba mois de mars pour génnee ko. sama sama parents ñu ngi fii mais fii euh, fii man ak njaboot bi rek ñoo fi nekk maman chérie ak sama njaboot ñi ngi dakaar fii sama sama papa dafa euh, dafa génne àdduna waaw sama yaay sama yaay noonu 2014 sama. voilà ma dundee ko non non ma xam ne euh, ku ñam dund rek da nga ñam dee. waaw ah, la ma fekk euh, te kenn ku ne xam ne sama diggante sama papa te euh, mu doon papa bu papa bu papa sama xarit la woon waaw bu mu génnee àdduna macha allah ak léegi dinaa ne ba léegi conseil am conseil am laa topp.

Hmm. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.